Donc, tu as déjà ton visa, j'imagine Je vais prendre la route comme tout le monde sorti du pays. Prépare-toi, s'il divise la mer, on va aller en France ouvrir des boutiques là-bas. Je vais bien, merci. Mais Polo, un petit cola, tu vas du petit cola Non, je ne vais pas de petit cola, je ne vais pas de Gurubundao. Dis-moi, tu connais Kunkande Mais, c'est qui Kunkande C'est un serigne qui est très xees avec des yeux bleus il va xaree géej tout de waa Poulo dégg naa da nga yóbbuwaat France man je vais France. I love it waaw am na benn bis bi dem Europe kunkaan kare géej bi rek damay dem donne ma cinquante mille france t'amène en France à Paris Saint-Germain tu pourras voir Messi nga gis Messi mu sol 30 bi. mais je sorti d'argent. yow Ayib Law bul tiit ne t'en fais pas je vais t'amener gratuitement si tu fais ce que je dis. rek laa bëgg on a besoin d'une fille qui cuisine bien qui fait le bon njar njar soow. je sais bien cuisiner oui togg rek laay def. yóbbaale ma puloo yow fan nga ma see gis laaw bi mënul togg. waa ngi dëgg waa ngi dëgg laaw bi dafay saf lool eh waa Ayib Law. attends attends kaaral mi wind indi ma dama je vais ton nom tout de Bonjour, Flo. Comment tu vas Bonjour, semua, Comment tu vas, Genargis Je vais très bien, Alhamdulillah. Nakasaduguda, mengedalah. Ah, dalah seer, dan dalah doet rek. Dalach biam, dalach un petit peu. Mais Plo, dama dégg da nga yëg waate France yow. Est-ce que c'est vrai Oui, oui, c'est vrai. Kon yëg nga Kounkanou Karagej bi Tamxarit j'ai un bus qui part en France Marseille Hollande Pays-Bas. ça tombe bien Poulo parce que man je veux en France bëgg naa dem Belgique de. am nga cinquante mille francs si tamit en Europe tout de suite. fukki du dara Poulo mais je veux aussi amener mon fils aîné Malick. ah ak si doom bi. donne ma cent mille francs uji naa noogaas mi naa mën onoon ido foofu tamit toi et ton fils. ok Poulo y a pas de souci je vais mille francs. mais j'espère que garanti c'est sûr xam nga ma dee soo ma yóbbul Belgique dinaa la ci fay dee. alaaji surug alaan ñaan kaa deew deng réew danga bëri wax bis bi dem jënd moteur bees tàkk euh, euh, moteur neuf j'attends seulement kunkande kunkande tan padan mi mu xar géej bi ñu dem suñu yoon kaaral mu bind sa tur si liste alaaji surug njaay assez compétent et son fils mais Pullo attends je vais te chercher des clients sama koñ am na fa ñu bëgg a dem Europe France rek lañ bëgg a dem. waaw kay sum karit yaa gën a kam quartier bii ñu bëgg dem ñu sonn ci réew mi wowal sa karit bi alaaj kaali ak kikindoo kongindoo ñoom ñëpp ñu ñëw yow ngar kam foofu. waaye am na boy nekk fii borom kab tilim yi benn tiset bi. ba euh, duñ amuñ chance duñ dem France duñ dem sax Kongol Kongol bii nii duñ dem.